أسير مع الأسرار هنا أسير bokki juliti bokki taalibe yi keur khadim rasul ci ndigelu cheikh mahamadul muntaxa mbàkke jauh cheikh mat bamba yal na fi yag lol ta ànd ak amin ci fuk serigne abdourahman ñang khalifa serigne bara ñang imam yal na fi yag lol ta amin ci tul sering moussa sek ak mbollem tali yi ak soppey serigne bara ñang yi serigne abdourahman ñang khalifa serigne bara ñang imam mo jox ndigel tali taalibe yi ngir ñu wajjal safar gi ci njiitul serigne moussa sek ak sering khadim ñang safar gi le nak ñukoy amal sayu yu wéro safar wi teroo la ko doore ci guddigu ga boba guddik fukel ga ak juróom ñu di ko amale nak fi ñu ko baxo di amale ci Touba Guédé ci baki Serigne Mbacke koi fas ko itam di defee nañ ko baxo di defee ci teewaayu Serigne Abdourahmane ñang khalifa Serigne Baara ñang imam programme ba nak buñ ci yeggee jam niñ ko baxo di amale noni yi la koy amale ta modi sayu ñu julé gee ba noppi daanu agzikar baba karim yi ak yi ak zikkar baba minu 10 sering serigne bi ñaanal mbolo mi yewi len ba tax mbolem jëwri ni di yëgle ak di fatali ak di yi nga xamni mom lañu waxo di laaj tollu ci 5000 francs di jooni jëm kaw ngir jëmele ko ci safar gi ba tax ñu di ko mbollem talibi rawatina bepp talibi bu aju ci kër gi wala nga di soppé safar gi le nak serigne bi mi nga xam leen ni lenn rek moy liko waral ngir waajal màggalu touba gi nga xam ni serigne touba khadim rasul mo joxe won ndigal ngir ñu ko ci la yalla ba tax ci njitum serigne abdourahman ñang khalifa serigne bare ñang imam di ci wo ak di ko mbollem ñi dekk ci gede ak liko ci njitul serigne omar buso khalifa sering mbacke buso ak mbollem jabotou buso ba gep di gël jàngkatu xasida yi duruskat yi zikarkat yi di ko fàttali itam mboolem fédération yi ko baaxoo di àndal waa fédération sirul maçon ak kuréelu jaalibatul maraaxib ak mboolem association yi Serigne Mbacke Diagne di ci woo itam mboolem taalibe yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di sàkku itam ci borom oto yi ak borom charrette yi ngir ñu yombal taalibe yi lépp lu jëm ci wàllu dem bi ak ci dikk bi mbokk yi ngir ay leeral yu gën a yaatu lool ca liggéey bi ak la caaju mën ngeen a jokkoo ak Serigne Khadim Niang ca 77 663 99 77 663 34 99 kon serigne abdourahmane ñang khalifa serigne bara ñang imam mi ngi ci bokk julit yépp ak bokki talibé yi xarit yi soppe yi wëlëre yi am di jamm yi te moy dundal guddik safar yi lé la ko dooré ca benn ya ak juroom fi ci touba gédé ci pencum serigne mbacke bousso serigne bi di wo ñepp bayiwul kenn ñaan képp ku téwé guddik safar yi rasul